nit ñoo xam ne ñoo ngi si biir TikTok bi di ko yàq benn mooy koo xam ne peut-être moo ngi rey nit ñi ñeneen ñi mooy ñoo xam jigéen ñoo xam ne wala sax góor ñoo xam ne ñoo ngi dem bay wane seen ay cër si biir TikTok bi noo gisee loolu. parce que ñoom dañoo xamul rek tey par exemple boo nekkee nit nga ne damay TikTok TikTok genre génne sa cër mayuloo ay abonné gis nit ki da ngay war a respecter sa bopp surtout njëkk respecter sa bopp mooy xam la nga xool li ngay jox sénégalais parce que créateur de contenu nga kon da war a créer du caaga da ngay créateur de contenu da ngay génne sa cër wala dara da war a wane un ba tey par exemple képp koo xam ne dugg TikTok pour mu gis exemple si pour mu mun a ñemee am fit pour dugg TikTok tu comprends léegi nag ki ma gis moo xamante ne mooy rey nit ñi na bàyyi li muy def bakkan dafa ku ne boo xamul loo ko bootee boo xamul lu ko ndeyam bootee kon waroo ko génn di ko wéli di ko naan dafa dee wala dafa kii loolu noonu baaxul te bakkan dafa foor yow mi def loolu maa ngi lay ñaan ngir yàlla ak jëmmi Seydina Mohamed bu fekkee chrétien nga ngir yàlla jëmmi Jésus Christ loolu baaxul mais temps yi gis nañ tamit yow kenn mënu la tur te di tur showbiz da nga a idaal yi noo dindee coow loolu man fecckat laa du damay fecc loo xamante ne Sidi Diop dafa may soxla woo ma fay ma Wally Seck soxla woo ma ma mais xam la laa mën a xam lenn mooy lenn nañu bàyyi coow te xam ne c'est la musique Sénégal kiy gañ showbiz mënul ñàkk mais saaga xastante xuloo lépp ci dans le fair play parce que lépp lépp ñoom ñoo bokk Sénégal Sidy Diop dëkkul Congo waaye dëkkul Brésil ñoom ñëpp ay doomu Sénégal lañu kon dañoo war a jàppalante Sidy na xam ne Wally Seck magam la Wally Seck na xam ne Sidy rakkam la ay ñoom Idali ay ñoom Baye Sall ay ñoom euh, Matar Diop a xam ne c'est le Sénégal qui gagne showbiz nag mënul ñàkk mais ay saaga ay nañu bàyyi yooyu ñun ñëpp ay magum jëm que dañu ñun dañu war a jàng si ñoom ñun xale yi dañoo war a jàng si ñoom te ñoom ay a un bon exemple ñun ñu leen ñaal Wally ñu ngi koy ñaal jàmm Sidy Diop ñu ngi koy ñaal jàmm c'est le musique Sénégal léegi mooy évoluer Nabou Dash noo diggee noo gisee fu mu toll nii ni muy dundee non mais sama tata bi dama koy nuyu ba pare di ko sant di ko gërëm di ko nag yaay booy rus naa nag mais bàyyi la affaire yi tamit xam nga affaire yi ngay def nii ak divorce yooyu nañ ko bàyyi rek mu nekk si jàmm suñ ko bàyyi mu nekk si jàmm mu nekk si jàmm mais nag lu nekk moom gars yi ñooy ñëw naan ko nabu daat yi nabu daat ne mais dañ koy ñaal yàlla mayal koo xam ne gën na ko te mu bàyyi tamit moom xanaa divorce yi salanse la wala. man euh, tata baal ma de. tata baal ma nag maa ngi lay ñaan ngir yàlla yonte bi maa ngi ñëw te su ma ay gros bisous ah. néew doole ci néegu sëy ak ñi nga xamee ne dañuy gaaw a daanu yéen lay waxal garabu ngóora nay dëgër ñëw na ngir saafara seeni jafe-jafe ñu liggéeyee ko ci biir réew mi amul benn effet secondaire ak efficace ci gaaw a daanu roof la kàttan ba ma dam am satisfaction